Moustapha Dieng maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. waaw Moustapha Dieng nga nekk coordonnateur départemental plateforme taxawu Sénégal euh, ca Koumpentoum euh, parrainage bi nag tàmbale nañ ko ci 27 septembre bile euh, naka la taxawu Sénégal organiser woo rek pour mën a am parrain yi nga xam ni moom la ñuy laaj pour élection présidentielle bu 2024. Hmm. waaw kay jërëjëf. ni ñu ko waxee effectivement man may Moustapha Dieng nekk coordonnateur département taxaw Sénégal bu Koumpentoum am mbégte lool ci woote bi euh, ci question bi itam donc euh, ñun taxawu Sénégal yoon wi parrainage yoon bi dañ ko xam miin ko président xalifa Sall deux mille dix neuf bi mu nekkee candidat mu nekkoon ci ay jafe-jafe amoon nañ parrainage ñu jàll premier tour deux mille vingt deux bi bi ñuy def parrainage yu député yi aussi yàlla ci biir Yewwi Askan Wi wax dëgg yàlla ñu defoon ci liggéey bu mucc ayib def suñ contribution gars yi gis ay parrain yu yu baax la ñu yon yónneewoon donc yoon wi xam nañ ko effectivement tey la direction générale des élections woo parti politique yi nga xam ne bëgg nañ dem ci joŋante bi pour ñu ñëw waxtaan ñu jox leen lu ñuy wax fiche fiche de pointage bi fiche parrain électronique comme version papier bi te ñun taxaw Sénégal comme ni ma la ko yàlla sànq waxuma ko ci français suñu waxee parrainage suñu xel day dem ci fa Idrissa Diallo ancien maire de de Dalifort en deux mille dix moo ko yoroon liggéey ci liggéey bi mucc ayib di ko ñaanal yal na ko yàlla xare ajana ren na euh, président Khalifa Sall euh, ñu ngi am lu ñuy wax coordonnateur national taxaw Sénégal Saliou Sarr moom la dénk aussi ren euh, parenage bi nga xam ne ci la ñu war a jëm yàlla dafa def la vingt trois août ñu def benn réunion bi dajale woon ñeent fukki département yi ak juróom benn coordonnateur yi diaspora bi ak yeneen partie yi nga xam ne bokk nañ ci taxaw Sénégal ñu waxtaan ñu ne ñun parrainage citoyen lañ def parce que xam ne ñetti façon parrainage ñaar la mais benn bi dañ ko xaaj ñaar parrainage citoyen parrainage des élus élus yi nag am na député am na aussi lu ñuy wax exécutif yi au niveau local mooy président conseil départemental ak maire mais ñun dañ jëloon décision parenage citoyen la ñuy def comme que ci askan wi la ñu jëm bëgg réew mi mënuñu jël député parce que am nañ fukki député ak ñeent alors que ñett la ñu laaj loolu dafa mel ni day xaw a yomb donc tey organiser wu nañ désigné ñu coordonnateur national du parrainage moom dina désigner quatorze délégués euh, régionaux par région bu nekk ba pare léegi ñun ci département ñu organiser am ay mais si ce n'est pas de façon officielle ay délégués yuy coordonné pour ramasser kii bi mais ñu am ay collecteurs donc loolu liggéey boobu tàmbali na avant te dañ koy continuer man ci sama bopp pour continuer sax maa ngi war a ngi def njeexital bi distribuer fiche yi euh, dimanche le premier octobre woo nañ département bi yëpp dans le département de Koumbine on a dit am nañ fukki commune ku nekk ñu jox la donc même niveau national organisation boobu moom soo jëlee quarante six département yi tey liggéey nañ ci ba nga xam ne ni dinañ dem ci parrainage citoyen bi dajalee lim bi lim bi ñu laaj ñu mën ko yóbbu conseil constitutionnel ci respecter délai yi nga xam ne ni wax nañ ñu ko waaw kon daal dafa mel ni yéen eh, ñuy kaas affaire parrainage eh, taxaw Sénégal bokk si parce que dafa mel ni amoo leen benn eh, problème pour avoir le nombre de parrains requis demandé en fait amoo leen si jafe-jafe. non non ñun ñun duñ ci bokk parce que c'est des parrainages citoyens ni ma ko waxee yàgg nañ ko am ñu nekkoon ci jafe-jafe am ko. ñu nekk député am ko donc tey aussi tey président Khalifa Sall sànq aussi fàtte naa ko wax ci tubaab commencé wër Sénégal. def Rufisque def zone Diourbel bi dem la Sénégal oriental donc Pentoum euh, Goudiri Tamba Saraya Salemata barki Dembo Ndiaye du 9 au 10 mu ngi woon Louga du premier octobre au au au 7 mu ngi Kaolack donc wàcc ci terrain bi ñun askan wi lañ soxla te xam nañ fi askan wi def xalifa Sall ci seen xol donc ñun amuñu jafe-jafe parrainage Euh, citoyen dañ ciy dem te gëm nañ ne li nombre bi ñu laaj mhm. dinañu ko am parce que miin nañ yoon wi xam nañ yoon wi te gëm nañ ne sénégalais yi wóolu nañ koy wóolu président pour parrainer président Khalifa Sall du nekk jafe-jafe ci ñu organisation technique bi aussi def nañ ko parce que désigné na benn coordonnateur adjoint technique euh, muy suñu camarade Opa Diallo nekk le coordonnateur départemental de taxaw Sénégal bu Bakel un expert en informatique ak ñoom Lamine ñoom dañu nekk QG ñu yore suñu machine lépp lu ñu dajale ci département yi ñu acheminé ko ñu saisir ko saytu ko xool est-ce que amul ay doublon wala est-ce que parrain bi baax na selon la commune selon le département ba nga xam ne suñ ko yóbbee conseil constitutionnel donc loolu duñ ci am jafe-jafe donc ñun bokkuñ ci ñu ragal parrainage bokkuñ ci ñu tiit ci wàllu parrainage léegi léegi nag lenn am na ñun dañu yaakaar ba léegi avancé yi war parrainage bi waroon na gën a avancer nii opposition waroon na gën a xiif parce que ni ñuy defee parrainage Sénégal dafa mel ni vote la avant le vote benn candidat rek lay parrainer ça te nit ki benn nit rek la mën a voter le jour dafa mel ni da ngaa avant le vote man li ma gëm suñ bëggoon mu mu gënoon a kii quand même allégé dañu waroon a wax parrainage citoyen lu mu bon ba nit ki war na mën a pare parrainer ñaar ba ñu ñetti liste maximum parce que soo demee jour vote bi ci parmi les trois là parce que parrainer nit mooy bëgg naa di bokk mën nga wax bëgg naa kii ak kii ak kii bokk ñetti ñi mbala ñaar ñi jour vote bi nag nga xool kan ngay voter mais ni mu melee ni c'est ni un vote avant le vote je pense que loo xam ne te ëllëg su su su président Khalifa Sall ñëwee parrainage dañ ko dindi parce que avec ces soixante candidats ce parrainage amul woon élection parce que 2017 élection législative 47 listes ba gis nga nu ñu tordre woon code électoral donc parrainage c'est bon mais il faut ñu gën koo Euh, euh, ñoŋalaat ba nga xam ne nii du nekk un vote avant le vote. voilà euh, Moustapha Dieng aussi naka nga gisee sorti bu Serigne Moustapha Sy ci gàmmu gi moom c'est un guide religieux mais aussi un homme politique wax si actualité politique bi naka nga gisee sortie bi mu def voilà. Serigne Moustapha Sy waaw xam si maa la koy junj sànq sama leader ñun daf ñooy ne li jëm ci Serigne Moustapha Sy vraiment bëggul ñu koy commenter te moom ci boppam. Mhm. wax na ko fi je benn télé. ne diggante moom ak Serigne Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy magam la sëriñam la ba pare li leen boole du politique li leen boole lu yàgg la seen diggante presque ñeent fukki at la hmm. ñaari magum jëmm yu am presque Khalifa Sall à soixante ans juróom benn fukki at ak eh, juróom-ñaar soo ci dindee quarante ans vingt sept ans la donc mille neuf cent quatre vingt trois quatre vingt quatre Serigne Moustapha li mu nekk nekk mag soo ci dindee aussi quarante ans li koy dese lu bari donc li ko boole Khalifa Sall du tey donc moo tax mu ne vraiment bugguma daal sama diggante ak sëñ bi ay waxam ay kàddu ngeen koy commenté yéen def leen li ngeen war a def man ma def li ma war a def moo tax daal ñun dañuy bañ a presque di di di di commenté ay waxu kilifa bi nga nga ay kàddoom ci wàllu politique mbala diggante ak président Khalifa Sall. ah mais gis nañu aussi ni mu waxee euh, Serigne Moustapha si moom dafa euh, euh, Ousmane Sonko lay soutenir politiquement. au lieu de Khalifa saal comme ni nga ko waxee te ñëpp xam nañ diggante Khalifa saal ak Serigne Moustapha Sy na nga gisee soutien wu Serigne Moustapha Sy euh, ci Ousmane Sonko. waaw xam na tey nag loolu waxuma ko woon ci français tey. Mhm. bépp Sénégal loo xam ne nii yoon moo la ñor. injustice buggoo ko da nga war a soutenir président Ousmane Sonko et ça je devais le dire même en français même ñun ci suñ bopp dañu soutenir président Ousmane Sonko ci li muy dund parce que ñun ñoo ci njëkk a jaar. Karim jaar ci. Khalifa Sall jaar ñu bëgg ko cee jaar ne ñu ngi koy dundaloo loolu du Serigne Moustapha Sy dong moo ko war a ñaawlu maintenant su ko ñaawloo ñaawlu woon nag mais mën nañ wax aussi sëñ Moustapha bés ñëw na mu ne ko dugal Khalifa Sall kaso ma ma ànd ak ñoom kaso te kaddu yooyu ñu ngi fi nu mu tuddati barki Demba Ndiaye avant lii wax na fi Khalifa su waree falu président moom moo koy fal loolu waxu soutien Khalifa Sall te ci même cérémonie bi xam nga nit ki ku bokk ci mbir ak ku ñu boole ci mbir du benn. xaw ma ndax di comprendre ku bokk ci yëf ak kuñ nar a boole ci yëf du benn su xalif bi demee ba ne sëriñ bi ne man de bi ma ñëwee gisuma xalifa laajte naa xalifa ñun te moom ma waroon a tant tant yi ñu ne xalifa mu ngi dem ci diggante yeneen kooku ci biir la nekk cofeel gënul loolu donc bref nit ñi buñ jaxase taxawu Sénégal ak Pastef nit ñi buñ jaar jéem a jël diggante jaarale sëñ Moustapha wax loo ko lu mu waxul mbal la ñëw dafa beddi Khalifa Sall Serigne Moustapha mënul beddi Khalifa Sall Khalifa Sall mënul beddi Serigne Moustapha ni ma ko waxee sànq diggante sëñ bi ak xalifa ay relation mag la ay relation Serigne la ay relation yu ma mag mii di wax ak yéen la donc même ni presque maay am juste quarante ans donc wax dëgg yàlla at loolu lañ ci bëggoon àdd mais won leen nii ñun Khalifa ak Serigne bi wax dëgg yàlla moom wax nañu ci làmmiñam suñu nopp ci ay réunion de benn ji nit ñi di ko interpeller mun na leen def leen li ngeen war a def ngeen bàyyi ma def li may war a def sa diggante sëñ bi ak man loolu lu yàgg la du politique moo ñu boole te politique duñu boole voilà euh, ñu gis ni actuellement ñu ngi laam-laamee benn remaniement euh, ministériel est-ce que fi réew mi toll euh, juróomi ñu ngi laam-laamee remaniement ministériel voilà mhm. njiitu réew mi mhm. sax a ko wax est-ce que gisoo mhm. ne priorité yi feneen la ñu nekk parce que juróomi weer wala ñeenti weer moo xam nga nag ni contexte bi toll nii il faut que président en principe mu def mu def euh, remaniement même su dul priorité parce que mënoo désigner premier ministre candidat ba pare mu continuer di diriger gouvernement fekk yo am na ñeneen ñoo wax bàyyi leen peut-être li des juróom ñi at ba juróomi weer ba juróom benn yi des peut-être il nga defaraat attelage gouvernemental bi jéem a jox ñi bonbon nax leen ak yooyu priorité Sénégal yàgg na nekk bu dul bu dul mun tuddati bu dul euh, remaniement mais président Macky Sall dafa mel ni priorité Sénégal ak priorité am dafa wuute bokkul yàgg na tey ndëmm maa ngi nii mbëkk maa ngi nii euh, nawet baa ngi nii macha allah commencé na ci bisimilah rahman rafet lool yal na yegg ak jàmm ba tey xamuñu gisuñu disposition état yu Sénégal jël ci wàllu mbéy mi ci wàllu càmm gi ci wàllu njàng bi école ak gi ubbi ba léegi presque dix huit mesures yooyu ñu wax après déggatoo ko bu njëkk su doon école di ubbi da doon nekk cawarte parents yi kontaan élèves yi kontaan ñëpp kontaan mais tey suñu waxee ubbi école rek day mel ni benn crise la da ngay da ngay am angoisse yow yow kër gi état yeeg yëpp donc priorité Sénégal président Macky Sall yàgg na ko woon ginnaaw comme que def na fi fukki at ak ñaar Sénégal soxlawu koon ci wàllu yenn démembrement yi nag ci wàllu njàng mi ci wàllu wér yaram bi ci wàllu euh, yeneen démocratie surtout waaw te loolu aussi dañ bëgg a préciser Khalifa Sall opposition la nekk tey opposition la nekkoon depuis l'an de mille ca la nekk tey ca lay nekk euh, ba tey suñu yàlla may nguur nag donc ñu bëgg a ci seen antenne bi éclaircir le président Khalifa Sall nekkul candidat wu Macky donc priorité yi ñun gis nañ leneen law mais il est obligé agenda républicain wala contexte politique moo ko obligé mu koy def mais su ko naree def na ko def gaaw comme que ñu leen fi desee bariwul ñu teg yoon réew mi ci yoon ñu liggéey li ñuy liggéey def élection yu jaar yoon yu mucc ayib. Mhm. ku sénégalais yi wóolu ñu fal la. voilà naka nga gisee candidature bu bun Abdallah Dionne surtout yaa maam booy Diao parallèlement ak candidature amadu Ba mais Boun Abdallah mi nga foog ñu foogoon ni du teggi benn yoon euh, waxi président Macky Sall dëggal na candidature am fi toll nii mi ngi ci wutum parrain naka nga gisee mhm. posture euh, Mouhamed. waaw li ma mën a jàpp li xew biir APR lii tubaab di wax système entonnoir le président Macky di def mais dafa mel ni ndax moom jàngul ci PS en l'an 2000 parce président Abdou bu mu demee premier quarante et pour cent la am mais Niass ak Djibo Ka ko daane malgré que deuxième tour Djibo waxoon na nañ ko wol les cinq les sept pour cent 2012 gis nañ gars yi jënd Idi jaar fi Ousmane Ngom jaar fi Kële jaar fi mhm. loolu jiguloon Ablaye Wade léegi jiguloon Ablaye Wade jigul Abdou Diouf du Macky lu mu nekk nekk politicien ñun xam ne ñaari ci ñaari levier la dafa bëgg na leen léegi pour opposition mën a bañ am doole ni mu amee woon ci local yi ak législatives yi def leen candidat ngeen jël voix yu bëri parce que tey Aliou Ngouille Ndiaye peut-être su nekkee dans le Linguère mën nañu wax ne opposition du ko fa mën a gagné Mame Boye Diao su nekkee dans le Fouta dëggal dans le Kolda Fuladu mën na fa xëcc lu bëri pour ndax ni ma ko waxee sànq bun euh, man yaakaar naa diggante moom ak Macky Sall mu wuñu parce que yàgg nag moom collaborateur am yore woon fi mu petit PSE dem fi nekk premier ministre jël tête de liste nationale euh, législative 2017 wër 45 xaw ma 46 département waaye en son temps gañeel ko jox ko benn benn majorité bu bu qualifiée majorité bu aise bu am avance au niveau de l' assemblée nationale kooku su demee ba tey ne day maintenir candidature am dafa mel ni am na fu ñu gis am na fu ñu waxtaanee ñoom l' essentiel bu dërëm di génn gaal gi loolu la ñuy calculer. donc suñ defee système entonnoir boobu suñ demee deuxième tour ñu jàppale kii su fekkee Amadou càll na ñu jàppale ko fekkee gën ñoo jàppale Amadou ñëw jàppale ko bëggoon naa ko wax sànq dama ko fàtte sur le cas Amadou Ba am nañ ci lu bari luñ ci wax mais xam nañ ne nii ce n'est pas le candidat idéal votel tey Amadou Ba mooy la continuité de mooy la continuité du troisième mandat donc euh, loolu ci seen biir la ñoom ñoo xam ne ñuy tojee seen bopp ji na mais opposition moo war tey ba nga xam ne nii ñun li fi nekk tey dañ koy bale. élection deux mille vingt quatre yi pour yow ci tënk rek euh, lan mooy condition yi pour mu nekk élection yu mucc ayib. waaw kon pour kon dem ci élection yu mucc ayib déjà da élection dafa war a de euh, élection yu nu ñu koy tubaab di wax libre transparente inclusive que ñëpp bokk ñu bëgg a bokk ñi. suñu weesoo étape boobu opposition moo war a am taxawaay parce que tey am nañ code consensuel bu juddoon quatre vingt douze quatre vingt neuf code Kéba Mbaye bien vrai que président Macky Sall bi ñëwee deux mille dix ba ba ñëw ni ba avant le dialogue national bi caxat-caxate na ko def pexe génnee ci ay nit donc mais malgré loolu code consensuel bi code boobu suñ ci sukkandikoo war nañ ci mën a dem élection yu mucc ayu parce que code bii lañ demee élection locale deux mille vingt deux Yewwi Askan bala opposition gagné ci ay mairie yu bëri ñu dem ci élection législative ji nga ñu yóbbu leen balotage man gëm naa ni gagné nañ élection mais suñu ñàkk a seetlu ñàkk a présence dans les bureaux de vote mooy li ma doon wax sànq ci français parce que élection ñun Khalifa Sall toujours def ñu wax la loo fa jiitalul doo ko fa fekk donc nan ngay def ba jiital ko fa ci révision yi ngay commencé su ñuy réviser ñu bind binduwaat yi opposition daf ko war a toog su ñu demee distribution des cartes électeurs dañ ci war a toog tey l'ensemble bureau de vote Sénégal yëpp dañu war a def pexe opposition toog fa muy muy ci bureau fi ñu war a compter def li ñu wax centrale dajale xob yi département yi quarante six département yépp dañ fa war a toog ba ñu ñuy yegg ci kaw donc loolu sa opposition liggéeyee loolu foog naa ne nii même su dee am na ay njuuj njaaj njuuj njaaj yu ndaw lay nekk donc loolu ndax du loolu du nguur gi moo ñu koy defal parce que kayit may nañu ko ñun ñoo war a organiser ci suñu biir ba ñu mun fa teewee man gëm naa ne ni administration bi moo organiser l'an deux mille ñu def alternance organiser deux mille douze ñu def alternance organiser deux mille vingt deux deux élections en six mois ñu yóbbu l'état du Sénégal le régime Macky en en ballottage donc suñu amee taxawaayu niñ ko waxee jàmbaar taxawaay bu ñu war a taxaw je pense que élection yi dinañ ci dem ak jàmm président Khalifa Sall qualifié deuxième tour man gëm naa ne ni kenn mënu ko gagné premier tour mënoo nekk te sondage président Macky Sall xam na ko ñun opposition ñun suñu bopp kenn bu jaay boppam fii xel ne mën nga gagné cette élection au premier tour donc gëm naa liñ ko wax bukki soo gisee mu yëpp waxambaane ci doxalin bi donc tey si état bi y avait opposition wala régime bi sax parce que l' état dama koy état c'est neutre du leen attaqué régime bi suñ buggee def loo état yi ñu def loo xam ne ni élection bi jaarul day fekk ci opposition lañ ko gisee ni ñu defee woon FRTE en 2000 defaat yeneen instance en 2012 tey war nañu toog ñun opposition ñu waxtaan ñu def ay instance yoo xam dañuy permettre ñu saytu élection du début à la fin pour ëllëg ñu xam ne suñu voté dimanche lundi ku nekk dem sa yoon ñu xam ne ni président du mu deuxième tour dem deuxième dans le deux le deux avril deux mille vingt quatre président Khalifa Sall prêter serment. voilà mi ngi noonu Moustapha Dieng en tout cas maa ngi lay remercier bu baax a baax. Euh, maa leen di dell gën remercier sant leen gërëm leen ci woote bi ak confiance bi ngeen am ci ñun. ndi ko fàttali man maay dëkk Koumpentoum ñetti téeméeri kilomètre ak juróom benn fukk ak juróom moo nekk digganteem ak Dakar nekk fa toogal fa Khalifa Sall te ñu nekk fukki commune département bi tolloog région de Thiès te am nañ chance ñëw na seet siñu foofu du quatorze au seize euh, février bi bi bi passé di leen sant di leen gërëm merci Moustapha Dieng jërëjëf